xanaa seere ci moom nit la woon koo xam ne ku bëgg sëriñ tubaa la doon ko liggéeyal amul woon guddi na amul woon bëccëg na ñu ñaan yàlla dajale ko ak Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mi nga xam ne doon na ko liggéeyal. li nga ràññee ci moom mooy ràññee woon ko ci kanam xalif général des mourides sëñ Sidi Mokhtar ba ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ba ci sëñ Mountakha Bassir mi nga xam ne moo fi ne waaye képp koo xam ne xam nga aatu la nga xam ci moom mooy liggéeyal Serigne tubaa ku bëgg Serigne Touba doon koo liggéeyal moom ci la nekkoon. guddi ci la nekkoon bëccëg te xam ngeen ni liggéeyal sëñ Tuubaa ci la lépp nekk ndax sëñ Tuubaa moo ne wa kullu man xaddama nii aw saara fa naj nii wax fii loo aw képp koo xam ne liggéeyal nga ma yàlla may ñaan nga tàggale ko ak bakkaar kon am nañ yaakaar ci moom bu baax ñuy ñaan Serigne Touba teeru ko dajale ko ak sëriñam boobu nga xam ne amul woon lu dul moom daja yàlla wàcc yërmandeem ci moom daayira bi nga xam ne ci la nekkoon suñu borom sàmm njaboot gi ñu ànd lig doxal ko ndax liggéey Serigne Touba ni ma koy wax saa su nekk du kenn rek ñëpp la ku dem mën ngaa wuutu sa ku fi dem man ngaa wuutu sa morom kon nañ xam ni mission moo jeex mu dem waaye ñi fi des nañ ànd liggéeyal Serigne Touba xam ne liggéeyal Serigne Touba ci la lépp nekk. dañu nekk mbokk soose yi xam nga. soose la waaw. Ah. fu ngeen jógee. ñiy a Guinée Bissau ñiy jokke Casamance kii mooy suñu jiit daara soose bi Alaaji Sidi Aja Seydi. damaa ko bëgg a wax ci soose. waaw. Eh, mbe sango kontoon na. mbemol be kontonna mbe sere muntaka kontonna sangola mbe ñin koyndila ko ñin men mbandate mouride sadique lam adu molem fana me yalon ko aketa sirin tuba e sirin tuba aketa mhm. e e sirin tuba ɗum momin keta e e ala ka keenne ke kiila ka keen comme abdata kiilanoma ñaamen mhm. alhamdulillahi rabbil alamin mbe mhm. du ala fo allahu taala si nema kaye asa samba sirin tubaɓe ɗamen asa samba sirin tuba samba kiilaɓe ɗamen to e sallllahu alayhi wa sallam résumé ñu ko ci en alhamdulillahi rabbil alamin maanaam ñu ngi sant yàlla yàlla mi nga xam ni moo e ah, ah. yàlla mi nga xam ni moo bindi lépp mu bindi dee ak dund mu ne kalakal mawta wal xayaata yi kullu man tusammihi maklukan fa adamuhu yakunu hakikan maanaam ku baax da ngay dem ku bon da ngay dem waaye boo baax nga dem moo kenn yàlla ñu taasi barkem ki barke Cheikhul Kadim ki barke Serigne Mountakha alhamdulilah ah, ñoom ay xanaa di ko méttalu rek ak di sant yàlla te xam ne moom bisam bii moom jar na sant ndax ku gis mbooloo mi xam ni moom li mu doon liggéeyal non fay nañ ko moom waaw fay nañ ko yal nañ taaf ci barkeem te fa mu jëm dàqal ko fi mu jógee te rafet nañ ci njort jërëjëf aouzu billahi mina shaytaani rajiim wa anniya izia bi ko sura tan sata ngi nuyu ñëpp te ziar baax a baax xanaa muy loo xamante ne tiis bu rëy la ci ñun muy loo xam ne mu ngi mel ni ab xale boo xam ne dafa doon namp bàyyeegul ween wi waajuram waajuram deddu aduna noonu la mel ci ñun tey bés la bu tiis la ci ñun bu tiis la ci ñun xëy na mënuñu ko naqaru ndax jëf suñu borom la te suñu Tuubaa dafa wax ne ko ki nga xam ne maanaam du jóg ci naqar mooy ki nga xam ne li suñu borom dogal neexu ko looloo tax mënuñu ko ne su maanaam métti na ci naqar la ci ñun waaye tiis la ci ñun lool boo xamante ne ñu ngi koy ziare murit yëpp ñu nekk ci biir réew mi ak biti réew yëpp. ñu ngi leen di jéglu bu baax a baax. commandant sëñ Touba moo wàcc tey liggéey. Mhm. koo xam ne ku euh, loo seq moom nga nekk si daara ji nga ñàkk see nekk nga génn si daara ji day am relation boo xam da koy téye ak yow euh, boo xam ne saa soo ko gisee rek da ngay xam ne am na lu la mën a dolli. Mhm. waaw kooku mooy sëñ Atou Diagne. te tey mbooloo mi ni mu mi ñu gis wane na ko. Mhm. waaw euh, soldat la si sëñ Touba pionnier la si yoonu murit révélateur la si yoonu murit. kooku moom loolu lañ xam si moom te di ko ñaanal sëñ Touba dool ay taw fee xam te lii gëj fi di ko jaale sëñ Mountakha Bachir waaw waaw bu baax a baax man projet même télévision Hizbut Tarqiyyah Al Mouridiyyah man maa maak moom ñoo liggéey si projet boobu waaw man si daara ji laa màggee dem États-Unis jàngi euh, lu bëri bu a mais terewul dama relation boobu dañ ko téye lu bëree bëri loolu moom xa jaxasoo nañ ku baax la ku ku ku ku soldaal Sëñ Tuubaa daal la loolu lañ ci am li ñëw waaw liggéeyam moom ñëpp xam nañ ne màggalu Sëñ Tuubaa gi bu tolloo fii wala mu mel nii tey ba jeunes yi di si participer am na lu si def loolu moom ñëpp xam nañ ko parce que bokk na si ñi nga ne ñu njëkk a taxaw di di di di di révolutionner yoonu murit di màggal gi si yoonu murit. macha allah waaw loolu jërëjëf. ah di wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di sant yàlla di julli ci bi di sant Serigne Touba. di ànd ak mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp ci tiis bi nga xam ne moo dal ci kaw yoonu murit di wàccu liggéeyu Serigne Atou Diagne nekkoon responsable moral bu daayira Muqaddamatul euh, daayira Hizbu Tarxiya Hizbu Tarxiya mën naa ko wax rek ndax daanaka ñun ñëpp benn lañu uh-huh. jànnite rek lañu am te mooy liggéeyal Serigne Touba muy koo xam ne itam liñ ko mas a xamee lépp mooy liggéeyal Serigne Touba bëgg ko lool am yitte lool ci liggéeyu Serigne Touba farlu ci lool itam doon ci jàmbaar lool yàlla may ko ñett yoo xam ne jafe ne ku ko yàlla dajale ci moom muy xam-xam bu mat sëkk ak fit bu mat sëkk ak jom ju mat sëkk euh, loolu nag lu ak xel mu rafet mu rëy mu yaatu ku yàlla may xam-xam bu mat sëkk nag may la xel mu rafet may la fit bu rëy war ngaa mën a taxawal lu rëy suñ borom nag jagleel na ko mu taxawal lu rëy te mooy daayira bi nga xam ne moom la bokkoon tuddoon daayira étudiant murid mhm. di dund ba tudd daayiratu xisbu euh, tarxiya mhm. yaakaar naa ne jëmmal na ci loo xam ne mhm. adduna sépp xam nañ ne marqué ne empreinte am ci yoonu murit mhm. mhm. kon nag dañ koy ñaanal suñu borom mi nga xam ne moom la doon liggéeyal ci toolu Sëriñ Tuubaa bii mu nangu ay jëfam yu baax yëpp te jégal ko ay rëcc rëccam xaare ko àjjana te teg loxo ci njaboot gi mu fi bàyyi lii nga xam ne itam ci la nekkoon doon ko yëngu doon ci yëngatu muy liggéeyu Sëriñ Tuubaa euh, nekk loo xam ne day jëm kaw rek bañ a laal suuf jërëjëf ñi fi bàyyi itam ñu ngi leen koy jaal bu baax di ko tàmbalee Serigne Atou Diagne eh, eh, Serigne Youssou ak mboolem waa Hizbut Tarqiyyah ci turu daayiratu Muqaddamatul Xidma Serigne Afi Bousso mi président bi ak ñi nga xam ne ñoo bokk ci eh, bureau daayiratu Muqaddamatul Xidma yëpp mm-hmm. ñu ngi yëkkati suñ jaal di ko jaal Cheikh Mouhamadul Muntaka di ko jaal itam mboolem membre yi Hizbut Tarqiyyah yëpp di ko jaal itam mboolem murid yëpp di ñaan suñu borom jërëm ko te jéggal ko te xaare ko àjjana te teg loxo ci liggéey bi nga xam ne moom la doon liggéey Euh, ba faw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonent bi di sant sëriñ Tuubaa xaadimu rasuul di ñaanal sëriñ Muntaxal Basiir sunu borom yàggal ko lool te mu ànd ak wér di masawu yoonu murit ak umma islamiya ndax jàmbaar jóge na fi liggéeykatu seexul xaddim jóge na fi di ñaanal ñi mu fi bàyyi suñu borom may leen xolub muñ te dëgër ci liggéey bi nga xamante ni moom na leen sëriñ Atou Diagne bàyyil ndax sunu xol dafa tooy ba ndax mënuñoo wax ci moom ndax liggéey bi nga xamante ni moom la ñu gën a féetal mooy xasida yi sëriñ Atou da cee ne yóbbu xasida foo xam ne jàppoon nañ ne da du fa àgg muy ci àdduna bi yëpp kon nag fee mu ne moom buñ ko wanee ginnaaw dana xam lan mooy liggéeyal Serigne Touba dana xam lan mooy liggéeyal yonent bi dana xam lan mooy liggéeyal liggéeyal sunu borom ñu ngi koy ñaanal nag fee mu ne sunu borom yërëm ko te jéggal ko ci barkeb Seexul Xaddim tey jii nag lay xam lan mooy liggéeyal Serigne Touba lan lay jëriñ doomu aadama loolu lañ mën a seere ci moom ndax lépp loo xamante mission la boo xamante juróom juróom xalifa yi nga xamante ni jot nañ fee jaar te nekkoon fi te ku ci mel ni sëriñ euh, Abdul Ahad sëriñ Saaliw ku ci mel ni sëriñ Abdul Xaadir ak Alhaaji Baara ku ci mel ni sëriñ Muntaxal Bachir ñoom ñëpp làq na seen ngërëm. ba ci sëriñ Siidi Muxtaar te bu ci làqoon ngërëmal kenn dong mu doy sëkk mm. te ñoom ñëpp mu ànd ak ñoom làq seen ngërëm. ba ci ñi nga xamante ne ñooy toogaguñ xalifa te nekk ay sëti seexul xaddim macha allah ñoom ñëpp sëriñ Atou Diagne làq na seen ngërëm macha allah ndax liggéeyam sëriñ Touba benn la ba ci seex si nga xamante ne ñoo àndoon ak sëriñ Touba mag ñooñu mm-hmm. sëriñ Atou làq na seen ngërëm macha allah ndax fu ci def na fa dara ba tiwaawoon uh-huh. sëriñ Atou dem na fa dara fa dara jërëjëf ci li mu fa defit mooy xasida seexul xaddim yi nga xamante ni uh-huh. moo nekkoon mission ci àdduna jërë ngeen jëf macha allah Mbacke waaw tey day lu am na tey waaye mbégte am na ndax kii doon liggéeyal sëñ Touba ku ñëw fii danga xam ni liggéeyal sëñ Touba rek moo jar muy sëñ Atou Diagne am na ñu ñëw fii ci armée yoo mosuñu gis Atou sax dañ ko ci télé rek waaye liggéey gi mu doon liggéeyal sëñ Touba moom lañ gis ci moom looloo waral ñu bàyyi si nit yëpp ñëw dan naa ñëw bàqee denc bu nekk waaye denc bii maa ngi koy doo gis fii sëñ nag dafa doon nit ku yàgg engagé wu ko xam ba mu jàppee ba léegi bàyyiwul mu doon liggéeykat boo xam si dafa defar ay nit ñu bari am na col gu ràññee goo xam si yëpp daan na ko sol waaye bi mu ñëwee moom da ko gën a wanewaat foo ko sol dañu la yore is bu tarxiya asalem yee teel na faa dem lool ba mu fay dem boo gisee mu am fa euh, kër daara yu bari yu mel noonu lu ko waral mooy dafa teel a dem daggal fa donga yi jiitu fa ndax fa lañ ko waajale waaye Serigne Saliou Mbacke mu mag mi mi nga xam ne moo defar gone yi moom daram du asal ndax moo ko jëloon teg ko ci loxol si Serigne Mountakha Serigne Mountakha tey avant ñu julli ajjuma dem na fa bi mu ba noppi dellu na fa am nañ mbégte ñàkk nañ nag ndax kuy jàng xasaayit rek wala nga di ci yëngu suñ aatu bu demee yow la demal ñoo koy ñaanal yàlla nañ ko wut wuutu goo xam si na mu ko bëggee woon noonu la ko amee ndax ku dem ci université bi song na fa loo xamante bi nii ñu bari ñu baree bari am na ci cofeel bi mu ko defee waaye ñoo ngi ñaan yàlla nañ ko ko àggaleel ñoo ngi ñaan mu tëdd nag yàlla na ko suñ tubaa gën a taxawu suñ xol fees na lool tey ndax dañoo ñàkk koo xamante bi nii sembul la ci réew mi